jërëjëf sëñ Cheikh ni nga ko waxee rek sëñ Abdou Lahad mooy wax ci turu sëñ Abdou Karim mu mel ni nag sëñ Jili mii lii mu def ànd ko ëllu alxuraan yëpp lii rek mooy liggéey mooy ndonol sëñ tubaa sëñ tubaa moom lenn rek lañ koy donne muy alxuraan ak yar nit ñi teg leen ci yoonu siraatal mustaqim suñ demee nag ba jox la ci cër cër bu cër bu nekk dinañ ko tudde nit waaye sëtub sëñ tubaa ñu tuddee ko alxuraan loolu mooy ndam. kanzi alkitab wal hadis wal adab laa jamu fiddatin wala jamu zahab lii rek bi xidmatil qur'ani wal hadis lii rek mooy ndam kon sëñ Abdou Karim taalibe yi nga xam ni ñooy ñun ñooy taalibe yi sëñ Tuubaa yi ñu ngi saggu ci sa jëmm ji ndax tey jii du ñu déggee sëtub sëñ Tuubaa tudde nañ ko lu ñuy defal alquran waaye loolu mbégte la ci taalibe bu xam sa bopp xam li taxoon a jóg sëñ Tuubaa kon nag jërëjëf Mbàkke ndax taalibe yi njabootuk sëñ bi rek ñoo leen di sagal njabootuk sëñ bi taalibe yi rek ñoo leen mën a sagal ba ëllëg sëñ tubaa boole ñu sagal ndax feekat sëñ tubaa rek fu mën a sagal kon ñu ngi nuyu mbooleem sëriñ Cheikh mi kilifa jotaay bi nga xam ni lii rek ko ñor muy xam-xam ak un lu al ak ak ñu koy dund yàlla yàlla guddal saw fan ziyaare sëriñ Abdul Ahad Gaynde Fatma gis nañ bu baax sag bëgg lu baax ak sag taalibe ak maam sëñ maam Balla docteur suñu xarit ziyaare suñu nitu bopp koo xam ne ñëpp xame nañ ñag moom muy alaaji Cheikhouna Mbacke Ridis ak njabootam gi fi nekk ak yëpp nuyu délégation yi fi ñëw yépp gis na léegi sëñ Modou Kara yebal Ahmed Saloum jeng ak doomam bi di ahlu alquran sëñ Abdou euh, sëñ Abdou Lahad Bousso mi ñuy tijil nak nit ku bax la borom xam-xam la kon moy wax ci turu wala moy tijil sëñ Abdou Karim sëñ Abdou Karim nak ku ko tuddé alquran tamit Cheikh wacc na ndax mamé bi bindal lañ sëñ Touba lopp fanwéri kamil Cheikh mustapha mi taawub sëñ Touba mo jur mamam soxna Mariyamu sëñ Modou Moustapha bindal na sëñ Touba lépp fanweeri kaamil Cheikh Mamadou Fadal mii maamam bindal na sëñ Touba lépp fanweeri kaamil borom daarul moxti mii maamam sëriñ Touba ni woon mooy sama përëxum dajoor Ibrahima alladi lam yu faarix nii lam yu xaalit nii laa fi sixarihi wala fi kibarihi loolu sa maam rek ku dégg muy borom daarul moxti sëriñ Birahim Ndiaye Guède mii sa maam tamit tërbiyu na sëñ Touba sëñ Aliou Ndiaye sa maam sëñ Fallou ni woon jaasi la def na ko jaasi ju ñaw ju mën a dagg ndax ma téye ko di ci dagg wala ma jox ko seigne biray mu ci dag di ma ci dagal kon loolu lepp du dajé ci yow seigne ma samba Kandi bu ñom ñep way loolu limi am solo seigne Ahmed salum jikko ju rafet moko upp solo nit ki man nga ku le man na jur ku ne man man nga bok fep fépp fu bax foye sa bop ba kenn du la kon nak du fekke ni fi nga bok fep di mbokum yoonu murid wépp di mbacke mbuso bek ñep yalla dogal nga xam sa bop xamin wo xamni ne dayo bëgg lu bax yaag sama gi di Cheikh Mamadou Fadal duñ def lu dul ñaanal leen waaye yéen duñ leen ñaanal dañuy ñaanal sëriñ basiru aw fanam gudd te yàlla wéral ko ci barkib sëñ tuba ñaanal seen waajur wa nga xam ne mu ngi ca kër ga di soxna waalo njaay suñ borom guddal fanam te wéral ko ak mbooleem njabootu sëriñ Aliou gépp ndax sëriñ Aliou kat day suñu lépp ñun ak njabootu sëriñ Aliou ñu ngi jéglu baax kon ñu déglu sëriñ blaat bu sa maram mu mën a yëkkati kaddu ci turu sëriñ Abdul euh, sëriñ Abdou Karim Mbacke bismillah jërëjëf alaaji sehanta ñi ngi nuyu mboolem mbokk yi fi teew yépp di ñaanal mohammed Muhammad Muntaxa mu yàgg fi te ànd ak wér ba lim am yéene liggéeyal maamam cheikhul Xaddiim yi ci toolub lislaam bi mu defe ko nu kawe njortam di nuyu bu baax ak uh, ziyaara ak ñaanal mbooleem kilifa yi nga xam ne ñoo fi teew mu mel ne bi doomi sëriñ Mouhamadunil Muntaxa teew na fi di sëriñ Cheikh di borom xam-xam di bindkat ñun ñëpp ñu xam ko kon daanaka dees na mën a jaar ci moom ngir nuyu mbooleem kilifa yi nga xam ne teew nañ fi jataay bi jataayub xam-xam la jataayub alxuraan la moom bu dee borom xam-xam di bindkat di gëstukat teew fi mooy doon buntub mbooleem kilifa yi nga xam ne toog nañ ci jataay bi kon ñi ngi koy nuyu di jaar ci moom di nuyu sëriñ Abdoul Ahad Mbacke Gaynde Fatma di nuyu sëriñ Cheikhouna Mbacke Ridis di nuyu mbooleem kilifa yi nga xam ne teew nañ fi sëriñ Cheikh Mbacke solution moom sëriñ ma sàmba ñu ngi koy nuyu di nuyu itam Nasiruddin euh, Ahmed Saloum Dieng ak mboolem kilifa yi nga xam ne teew nañ fi kàddu yu gàtt lañuy ñuy dañ koy ubbilee sëriñ Abdul Karim li tax ma mujj koo tudd mooy moom moo fi dajale mbooloo mi mooy boroom jataay bi ñun ñëpp moo ñu tax a jóg kàddu yi may yëkkati it moo ma ci jox ndigal ngir ma ubbee ko jataay bi nga xam ne moom moom lay tëje ay kàddoom dafay mel ne nag bis bu mel nii di bisub alxuraan ni ko alaaji si xanta yi waxee bu ñu ko jëlee jagleel ko ko moom mii daa mel ne dañoo delloo mbuum ca mbooy mbooy ga alaaj seexanta lim na léegi ay maamam yi nga xam ne ñoom ñëpp ay niti alxuraan lañ waaye sëriñ Mbàkke kànni mi nga xam ne moo jur maamam ñun ñëpp xam nañ digganteem ak alxuraan bindal sëriñ Tuubaa xaadim rasul juróom benn fukki kaamil ak ñett ba noppi dund juróom benn fukki at ak ñett kooku jàpp naa ne bu yemoon ci doon maamam dong doyoon na sëkk ngir ñu sédde ko cër bu mel nii alaaji Fàllu Mbàkke itam bindal serigne Touba khadim rasoul ñaar fukki kamil ak juróom-ñett ñaar fukki kamil ak juróom-ñett yo xamne amna ci kamil bo xamne da caay yobale mourid yep ndax bam ko bindale serigne bi serigne bi xol ko ne ko sa kamil bi rafet na wawna waye sa borom neena nga bindal ko ci benen mu ne ko sans yow day boo ma bindaloo kaamil ko bind jox lako adiya waye sans borom day buma bindelo damay fay mu ne ko nigal ma laaj luy ñeegam Lol, nak boba lañ ko gëjë dégg bi fi señ bi niana. moy muneko sa borom néna ab dir mu ne ko sa borom néna luy ñëgëm mu ne ko képp ku la xam te jébbalu ci yow bu faato na yaramam aram sawara kon alaaji fallu ràmm na murit yépp ci kaamilub alquran bo xamé ne bindal nako serigne touba jaarale ko ci euh, boromam kon lolu benen cër la bo xamné doyna ci sëkk kon serigne bi serigne Abdul Khadir, yow mi nga xamné yaay coordonné lu am solo li. di liggéeyub alquran bii ñi ngi la ciy ñaanal suñu borom defal la ci sa lu kawe sa njort ndax nit defut lu ko gën fi mu ne sëriñ bu mag bi xaadimu rasul bi muy wax ni li ñu lan mooy alalam ji mu fi bàyyi ju ñu ko mën a doon dafa wax ni bi xidmatil kitaabi wal xadiisi yathbutu laa bi dahabin mawruusi ci liggéeyal alquran ci liggéeyal sunna si yonente bi sallallahu alayhi wasallam ku may donn ëllëg di ma liggéeyal ci loolu nga may liggéeyal kon sëriñ bi moom li doonoon alalam gi ñuy doon ne ci moom mooy alxuraan mooy xadiis lii ngeen di def mooy ci liggéeyal ko ci fexe ndaw ñi di mokkal alxuraan waaye di xemmeem loo ndaw ñi alxuraan te jataay yu mel nii bokk na ci li koy indi sëñ Abdou Lahad Mbàkke dafa waxoon ne Sëriñ Tuubaa nee na ñetti ñetti mébét sëñ Abdou Lahad dafa wax ne ñetti mébét lañ gis yoo xam ne Sëriñ Tuubaa amoon na ko ci àdduna nga xam ne kenn gisutoon mu am jeneen yitte ju mu yittewoo lu dul ñett yooyu daan benn bi mooy taalibe yi ko yaakaar te jébbalu ci moom ñaareel bi mooy alxuraanul karim ñetteel bi mooy dëkkam bee di Touba sëñ Abdou Lahad daan ne sëriñ Touba digganteem ak taalibe yi ko yaakaaroon kenn ku nekk ci ñoom wan na la ci sa digganteek sa boroom wan la ci sa digganteeg moom lu tax bëggoo di kenn benn taalibe sëriñ Touba bu bëggoon di moroomam amut daan ne alxuraanul karim itam li taxoon mu yitte woowoon ko mooy nee na suñu boroom dafa wax ni ëllëg yowmal xiyaam kenn ku nek li doonoon sa pagouté fi aduna dañ koy indi jor ko ci kanamu adina ñepp diko gis seigne touba daan ne man bama xamé lolu la jël alcorane def ko muy sama pàgguteef ñettelu yitte jimu mu yitte woo fi ci aduna nak moy dekkam touba kon ñetti mbir yi seigne touba yitte woo woon buñ ko ko dé dundalal ci jotaay bi loolee japp na né ñi ngi def lu lu ñu def kon seigne Abdou Karim ñi ngi sante bu baax waaye di ko santal mbokk yi nga itam bayiko nañ ba Touba ñi bayiko fepp ci bir ndakaaru jog ñew te jëmmam ji rek tax neena nañu ko santal ñoñu waye itam mbokk yi nga xamne tew nañ fi ñi ngi ñaan ñu ñaanal ko mom ak mbollem ñi mu andal di liggey ku ci melni Serigne fallu li tax mu war moy ñun ay ndaw lañ yo xamne Touba moy suñu fierté. Euh, te moom dafa bokk ci ay yitteem mooy fexe ba ndawi Touba yëpp booloo doon benn kàddu gi mu ma yëkkatiloo lii ma ciy wax moo ma ko dàq fuuf bu dee lu ñuy jàng la jàng na ko bu dee lu làmmiñ mën a wax la mën na koo waxal boppam waaye bëgg a loolu mu bëgg ci Touba mooy ndaw ñëpp mën a booloo doon benn jàppalante kenn ku nekk fee yëkkati sa moroom ca secteur ba mu nekk ñi nga xam ne ñoo man lii ñi man laa di leen jàppale ci lii ñi nga xamne ño man laayit ñi man li di len jàppale ci laa loolu moy li nga xamne mom moom la te bis bu yalla sakit ci lañuy waxtaan man ak mom ci lay waxtaan ak mbokk yépp kon nako ko bokk yi ñaanal ci loolu te ñun ñëpp ñu and teunku ci genn kaddu gogo moy di jàppalante ci bu ñu gisee waaye di jàppalante ci bu ñu wut kenn baña nangu nit ñew ci yow di la wax ci sa morom ab safan loolu ñun waa wa nañ ko bañ bu ñu wéetoo ak kenn ba dara jaral ñu ñuy nangu suñu menn mbokk di sikk bu ñu wéetee nag ci suñ bu néeg lu ñuy waxante ñu waxante ko waaye saa bu ñu génnee nañuy protégente loolu yitte la joo xam ne sëriñ bi bëgg na ko te man mi wax na ma ko te yàgg nañ cee waxtaan kon nag ñi ngi ñaan ci mbokk yépp ñu dolli ko ay ay ñaan te itam ñu ñu ñu li tax ñaan googu itam mooy référence bi mu doon ci ñun man awma complexe ci toog fii ci seen kanam yéen ne leen sëñ Abdou Karim mii man référence la ci man parce que bu dee jikko bi mate na ko ndax nit ku la mën a jur ci àddina li sëñ Tuubaa waxoon ci nax ju xaddaa ilhaaji man haaba rijaala tahaya boohu wa man xaqara rijaala falan yu haaba ku la mën a jur nit ñi boo leen defut ni leen yàlla def mënoo fexe bañ def la ni la yàlla def bu fekkente ne nag da jàpp ne nit ñi dañoo doye di boo leen doye di lee it loola saanu wuy dem di dellu si la te sëñ Tuubaa waxoon na ne saanu wuy dem di dellu si la ca doy doy na ca kon moom ni mu def nit ñi ñun moo ñu yëkkati tey jii waaye du caagi ne lenn yëkkati nañu ci moom te loolu it mbooleem ñi fi nekk ñépp kenn ku nekk ci ñoom man dama koy wax ci sa tur ndax moo valable ku nekk ci lay daw cim xelam mooy ci ab jëflante bu rafet ci sa diggante digganteeg sa mbokk sëñ Abdou mii jëflante ngeen ko mu yegg foo xam ne ci yow bu amee bisam lum la fekk nga jàpp di nga ko bàyyi juk ànd ko ak moom kon loolu bokk yi na ñun ñëpp di taxawee nu mel noonu bu kenn amee ñun ñëpp ñu jug taxaw ànd ak moom bu dee lu neex la ànd ak moom bu dee lu la bu ñu ko defee lu ñu bëgg danañ ko am foofu la ñuy wàccee suñuy kàddu alaaji Fàllu Mbàkke daa waxoon daa firi woon benn yonente bi sallallahu alayhi wasallam mooy aljamaatu rahmatun dafa waxoon ne aljamaatu mbooloo rahmatun lu ñu songu daan ko kon ñun nañu nekk foofu te jëfandikoo xadis boobu wasalaamualeykum wa rahmatullah